ahlan bikum Ousmane Sonko ma nga ca diggante du ak dee koma gu métti ca la nekk allah yéene kaay yu bari fa ñoo xëy di ñu ko yeggee bokk na ca bés bi yéene kaay fa ñoo xamal na yëf ya tàmbali na de wér-gu-yaram Ousmane Sonko fa gàlla góose fa garaaw fi mu toll nii fa jaaxal ay jege ñaalam rawatina ay awakaam ya nga xam ne ñoo koy gis bokk na ca maître Ciré Clédor Ly fa xam le na jamono jii Sonko mi ngi ci coma maanaam booy wax ak moom du dégg du tontu nekkul fi daal musiba naaru laay mën na ci am waxtu wu nekk ba tax fa daal woo njiit réew mi Macky ñu fexe Ousmane Sonko génn kaso mu xëlbati woo kilifa diine yi ñu wax ci Ousmane Sonko génn kaso naka noonu waa bitim réew xoo ñu dugal ci seen loxo balaa làmbaay ñaaw l'observateur feelu ko ne wér géeramu Ousmane Sonko tiitaanga ak njàqare moo ci xam fi mu nii ndax fa nekk ci coma fay nelaw awakaam ya ci seen wàllu communication pexe yañ ca a sëkkatal ci kaw Ousmane Sonko fa nekk ci diggante dund ak dee depuis altine ba léegi ba la nekk loolu fa garaaw comment léeg si ko yéen naa a tudd waxtu nekk mën naa am ba tax Khalifa Sall ci léeg si ko yéen nee na Ousmane Sonko gi nekk ci comment diggante dund ak dee li ma métti rek mooy moom Ousmane Sonko dundam gi la tay la joxe ko lépp a ne wàllu atte moom ak Mame Mbaye Niang moom Ousmane Sonko faa ragal ne yëf yi fañ koy dàq maître Doudou Ndoye moom ma ngay leeral fii suprématie yi ñu war a jox Ousmane Sonko Sonko ak wane na tamit même mbiru Mame Mbaye Niang sax mënu koo tere sax mu bokk ci wote 2024 yi yor yor yéen a kaay na ko hee Ousmane Sonko de bu bokk ci wote 2024 yi mooy ne fay jël ndam li mooy nekk président bu Sénégal loolu sax amul sikki sàkk yaaw seetal waa lokaas yi fa ñoo xam le ne mbooleem sondage xayma gi amal ci wote 2024 yi sondage yépp fa jox Ousmane Sonko ndam 60 yi moom lañ nar a woteel premier tour ci lay mbuqi gaañi moo tax gaañi fa ñoo bañ bokk ci wote yi ndax fañ koo ragal xam nañ ne moo leen mën yu bëri moom lañ gën a a kaay moom génne nañ ko ca kasoom ga teg ko ci loxoy commissariat bu Grand Yoff beneen xeetu procédure de moo koy yoot yoor yoor yéen a kaay nekk fi nekkoon njiit réew bu Mauritanie ñaar fukki atu kaso moom la gaa yi wax na moom lañ koy tëj de <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne réewum Sénégal fa xam ndam ci wàllu koom-koomam yokkute gi waa FMI yi ñoo ko wax ba tax fa ñoo sargal réewum senegaal ci taxawaayam bu jekk bu baax ci koom-koomam yéen a yu bari tamit fa ñoo xëy di ñu ko xamal <laughs> yaw fa ngay xool laas yéen a kaay fa wax ne yu baax ci koom-koomam info yéen a kaay na ko Sénégal kay mooy champion bi te mooy yéen a kaay na suñu koom-koom ànd ak na sax am na ak wàññeeku tuuti gu ci am terewul fi mu toll Sénégal mu ngi ci njombaxtalu Afrique le regard yéen a kaay na leen hée faa bëgg ngeen xam ne gis ngeen FMI li ñuy wax ku feebar niñ koy def solal ko perfusion loolu lañ defati Sénégal indépendant yéen a kaay na ko non non moom fa rafetlu yokkute jéego yi nga xam ne Sénégal def na ko ci wàllu koomam critique yéen a kaay na ko liy dëggal loolu mooy ne FMI fa ñoo xaatim sax ak déggoo a ko faa lay ñaan ma wax FMI fas yéene na ko dimbalee Sénégalati loolu lu baax la direct news yéen kaay dëggal ko ne FMI fa sargal rafetlu jéego yu Sénégal dox ci koom-koomam les si ñu dénk wàllu kopparu réew mi Moustapha Ba ma ngay andi ay leeral ci ñett yi waral ñu àndiwaat wàllu révision ci suñu croissance bor bi Sénégal yore nag bitim réew war koo fay nee na ba léegi c'est fayable maanaam dees na ko fay xattan nañ ko daal maanaam jéggagu dayo bëreegut ba ëpp ñu doole leer nen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Senelec noppi nañ ngir wàññi njëgu courant bu cher bi ah, yaw seetal xam ndaje la xamal moom Senelec ak askan wiy jëfandikoo courant bi waaye seen waxtaan wa fa tàngoon jir de waaye ca njeextale Senelec fa jënd galaas seddal xool nu mu def ba wàññi njëgu courant bi wala fa jër yéen kaay ñu ko xamal ne coow li yëpp nag li ko waral mooy état bu Sénégal subvention bi mu defoon na fa ko bi kaay ne ànd ak loolu yëpp nag Senelec ña ngay jéem wàññi courant bu cher bi si du quotidien dëggal ko na Senelec fa jubbanti ran yi njëgu courant bu cher bi xayma gi ci askan wi seen tolluwaay ñi néew dooleeg ñeneen ñi ñëpp fañ koy defaraat système bi baran bi jub koj leer nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na gëm sa bopp bugaan géy dani ak ñam xàndal fa ñoo kepp waa DGE yi waa grand place yi ne kaay ñi ko xamal maanaam gëm sa bopp bugaan ak ñam xàndal fa ñoo gis ay njumte yu bari yu am ci fiche parrainage bi électronique bi ci la ñu bindee bataaxal yónnee ko candeela faal njiital leen fii nga xam na fa la ñu war a dugal numéro d'identité bu jeex ak place yu bëri yii nekkut fi yii ni ngeen ko dugalee baaxut xoolaat leen lii erreur yu ngand ngeen ci def waa a nag xool ko na leen wax ngeen dëgg kon xaar leen ñu corriger ko ba tax tribune yéen kaay na gëm sa bopp kaay fa seetlu ay njuumte wax ko DGE DGE jubbanti na ko direct news yéen kaay na hee waaye ànd ak nag ne DGE andi na ci ay coppite nangu na ko ne def nañ ay erreur terewul ba léegi gëm sa bopp ñoom ña ku jege opposition bi ñu def ndànk ay ndëgg sërëx la gaa yi dugal ci biir nañ moytu de 24 heures jàng jàngalekat yi pare ngir xeex ba jàngalekat yi nga xam ne fañ leen jàpp tëj kaso ci ñaxtu yi fi amoon ak élèves yi nga xam ne fañ leen tëj kaso ci ñaxtu yi fi amoon ñu bàyyi la génn dellu ci école yi te nam gën a gaawee le quotidien yéene kaay moom fa xamal ne njiitu réew Macky gàcce ngaalaama moo état bu daal fañ leen a takkal raaya sargal médaille d'honneur ah, yaaw fa ngay xool bagage yi nga xam ne Léopold Sédar Senghor moo ko moomoon te ko ci réew mi réewum Sénégal nag fa ñoo jaaxle woon ndax fa xam ab gaal goo xam ne fa fee bàyyeekoo dugg ci géej gi barsamba barsàq fukki fan ak juróom-ñaar ak ñu doon ko wër fa réeroon mër waaye fañ koo mujj gis te dax la libération nag gaal googu kayaar la bàyyee ko woon ay alhamdulilah gis nañ ko laas yéen kaay na la ñu gis ñoom takk der yi garde géej gi mooy juróom benn téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay ndaw ñu bëggoon a dem barsamba barsàq fañ leen a am na ca ñoom fukki nen na ak benn aay ñoo seen yaay nag tàggat yaram équipe bu mag a mag bi Real Madrid waneeti na boppam de fa mbuqi baraagaa biir dëkkam ñaari bal ci benn Man United fa mbuqi Bayern fa mbuqi Inter fa mbuqi tey nag Barça fay bal Man City fay bal Paris moom Milan lay dalal stade yéen a kaay ne loolu choc la fa nar a neex de turbine yéen a kaay moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme te garaaw te xale yi jigéen ak soxna yi fañ koy def yaaw seetal xale yu jigéen yi ngir am ay hanches yu rafet lupp yu ponkal ngand wala xam ay ween yu rafet wala xam ginnaaw gu rëy ponkal fa leen a jaral fa ñu jël ay produit di ko jënd di ko jëfandikoo te produit yooyu ñuy jëfandikoo xam na yoo xam ne fa leen di rey ndax fa mën a yàq seen yaram garaaw yi jox la feebar xam na yoo xam ne fa nga koy pikiru mujj dee yéen kaay bi ne man faa xamut ana lan moo ko fi jar jëfandikoo loo xam ne mën nga cee dee wala feebar yàqu yaxet lépp ngir bëgg a am ay hanche wala fes yu ponkal yéen kaay bi ne am na produit boo xam ne sax bum bum la tudd hmm, waa ma ne xaw ma bum bum xaw ma bam bam gis nga xale bu jigéen ni la yàlla bindee sa yaram wi bàyyi ko noonu ku la ciy bëgg-bëgg la est góor ñi tamit du ñoo tax xale jigéen di def lii ah su a bëri xale bu jigéen su amul yooyu noonu duñ la xool duñ wax